waxabduka sab jaam ibrahimu ibrahim kaatibu madxikum bi aji bind seenu tagg xadu turra loru loof na ko jiddan lool faf kukan yal na nga xobbi xayda kaatibin jéngum aji bind farabuka sa boroom lam yaa gis lottut walam yasfu te juumut laa déedéet walam yanam te nelawut ba li fi nekk xadirun aji àttan la la meesal kook dañut xayra waaxi bindi ngën ji aji maye sa jaam bii di ibrahima jóob nag miy bind di la tagg mooy ñëw ci yow loru lool mel ni ku ñu jéng kon nga dal di dajji jéng bi mu tàggoog jéng bi ndax yow sa boroom tëliwul du fàtte du nelaw te yaay waayam joo xam ne loo ko ne defal ma ko mu defal la ko te moom nag tëliwul dara kon nag na sama aaju daal di faju nawaytu yéene naa bi ko ci yow al islaaha defar ga maa xistu li feek maa ngi dund inna ni naka man tawwaabun ab tuubaakoon laa li mawlaaya jëm ci sama boroom fa atiq yàlla na nga goreel li taayibin ñeel aji tuub damaa yéene defaru ak a defare li ma dese ci dund maa ngi doolee tuub dellu ci saa boroom kon ak sa daraja waxal sa boroom mu goreel ma jégal ma jasaaka yàlla na la doolee fay ilaahul xarsi buurub aras xayra jasaa yi ngeen ji payam ga wa arbaaka te yal na la gërëmloo fi daare ni ci yaari kër yi yaagal mawaahi bi yow boroom may yi bi xormati xayril xalqi ci ormay ngën ji mbindéef miftaaxi juudi yi kay caabi tabam nga alli yàlla doole nekk ci moom salaamallaahi yaari musali yàlla mootil garaay bi mi aji joxe way tumuranke ya maanaam way yéeme ya maxal aali ànd ak ñoñ ña wala asxaabi ak saxaaba ya yaa xaw sa xasrina yow xettalu sunu jamono ji wa yaa xayra masxubin tey ngën ji ku ñu àndal wa aftala saahibin tey ngën ji àndaale dafa daan li xasida gi ñaanal sëñ bi yàlla dolli koo fay ngën ji fay dolli koo gërëm ci àdduna ak àllaaxira ngërëm la gën a rëy gën a sax ci war may ngën ji mbindéef mi nga xamee ne mooy ceeb yi mayu yàlla maanaam mooy ubbi may gi yàlla jëmale ci mbindéef yi mu ñaanal ko julli ci moom yàlla dolli ko teraanga ak jàmm mook ay mbokkam ak ay saxaabaam sëñ bi yow laay wax nag di la ñaanal yàlla dolli laa fay dolli la ngërëm yow mi nga xam ne yaay sunu xeet lu jamono ji yaay ngën ji àndaale yàlla yonent bi yaay ngën ji ku ñu àndal ko ànd yow am na am na doo bëggën ci àndaale walahu aydan salaamun ab nuyoo ka miskin bopp mi ngi mel ne gët faaqa bopp kawe na badra sama in weeru asamaan kafiilun bu di aji gàddu bi na ma in cig dolliku xalaa toolil madaa ànd ak yàggug diir ba ilaa cheikhina jëm na ci sunu sëriñ dil makrumaati kay boroom teraanga ya allësi ka nga xam ne xadat xëy na xataa yaahu mayam ya mis la suux bi di kem ay niir yow ma saxaayin ci bisub tabe wakkal baxari ak niki géej aw kar réexi wala niki ngelaw ba li fi nekk xiya ñoom may ya fawqaxaa nekk nañ ci kaw yooyu wakkal laysi te mel ni gaynde yow mal xar bi ci bisub xare ba doona miraayin ci dul werante nuyoo bu ne xeet ba mel ni gët rafet lool ba gën a rafet weeru asamaan si tey nuyoo boo xam ne te yokk rek jëm kaw du wàññi ko moom la jëmale ci moom lay yéene jëmale ci sëñ bi nga xam ne mooy boroom teraanga ya mooy boroom may yu bari yi nga xam ne may day sotti ku mel ni xiini asamaan yu taw wala bari lool ba mel ni géej xam ne géej du jeex gaaw lool nu muy sotti ko mel ne ngelaw man nga ne sax ay mayam moo féete kaw yooyu yëpp te bu dajeeg noonu yàlla yi jàmbaare ba mel ne gaynde huwa moom alwaarisul aqtaabi mooy aji doon xutbu ya wal awliyaay ak wàllu ya man ka nga xam ne tafarrada wéet na fii sabqin ci ak raw li kulli xalaayin jëm ci gépp kawe kutub yi fi nekkoon yépp mooy seen dono wàllu yépp mooy seen dono wuutu leen lépp lu baax nag moo ca raw ñépp ñépp xadiimu rasulillahi mooy liggéeykatub yonentub yàlla ba baabu tariixihi tey buntub yoonam wa xasiinatu asraarin tey dencukaayu ay secret la hoññal ko wadiya in ak leer mooy liggéeykatu mooy liggéeykatu yonante bi di buntub ku bëgg a dem ci yonante bi di ko yonante bi jàppe ab dencukaay di denc ci moom ay secretam ak ay leeram la inkaana giñ naa ne bu nekkee lil axyaar yi di ñeel tànneef ya fadlun nganeel ka an jumin ni ki ay biddiw fa maa xoo déet moom illa shams ndare muy jant bi doona xitaa in ci ludul ak muuraay mu ne bu fekkee ne ñu baax ñi da nga leen di misaale ay biddiw ndax seen mbaax seen nganeel da ngay wax ne sëñ bi moom ab jant la boo xam ne amul dara lu ko muur te jant bi bu feeñee doo gis biddiw falil kulli ñeel na képp min hum ci ñoom rutubatun daraja wa makaanatun ak daraja taxaalat joj kawe na walakin waaye faaqahum kawe na leen bisanaa in ci yëkkati ko ñu baax ñépp baax waaye nag moom daa weesu baax darajaam féete kaw ñépp ajalluhumu mooy gën jaa màgg seen xaddaran ci daraja wa faxaran ak ci ndam wa xayruhum te gën ci ñoom usoolan ci ay cosaan wa faraxan ak ci bànqaas ba li fi nekk atam mu zakaa in mooy gën jaa mat ak ñaw wa ahsanuhum te gën a rafet ci ñoom xalqan ci bind wa xulqan ak ci jikko ahansuhum te gën a tedd ci ñoom janaaban ci wàll wa te gën a tabe ci ñoom yadan ci loxo bi xataayin ci ak may wa aksaruhum tey gën jaa bari seen ilman ci xam-xam wa fiqhan ak ci ak dégg bilaa miraa ci lu werante wa atyabuhum te gën a tey ci ñoom nafsan ci bakkan bi xayri xanaa in ci lu dul coona nee na mboolim ñu baax ñi moo ci ëpple daraja moo ci ëpple ndam moo ci gën ay cosaan gën ci ay bàngaas moo ci gën a ñaw gën cee rafet bind ak jikko gën cee tedd ak wet gën cee tabe mayu muy joxe ci loxoom ëpp la ci xam-xamu biir ak biti gën caa teey bakkan ñoom ñëpp moo leen gën a sedd xol gën leen a teey bakkan faman raama ku sàkku ihsaama lim la nga xam ne xawaa làq na ko min tafadulin ci gën faqad raama sàkku na ay yuuf si mu lim nu jooma samain bi diwi asamaan li ko yàlla may ci ngëneel ku ko bëgg a wàññi da ngaa mel ne ku bëgg a wàññi bi diwi asamaan yi te kon doo ko mën falawla ilahul xarsi bul ko nag buur aras jàll màgg na jalaaluhoo màggam nga taqaddasa sell na xan aw saafi ahli fanaa in walis meloy ñoñ jeex laqul naa kon nu wax ni huwa moom almaabudu mooy ka ñuy jaamu fardan mbir mu muy kenn bi daat yi ci jamono ja fa aw saafuhoo ay meloom toujours yi danañu xeebloo bi kulli sanaayin ci bépp tàgg yàlla day day koo xam ne nee na moom rek ay yàlla ku bokkut ak moom it di mbindeef moo xam ne moo la sàkk ngay mbindeef rek am fooy tàmbalee am fooy yem moom nag amul fu muy tàmbalee amul fu muy yem bu kon loolu de ñu wax ne sëñ bi ca dëgg-dëgg mooy jëmmi yàlla du jëmmi yàlla nag jaamu bu yàlla waaye melo yi ko yàlla may àgg na ci kenn mënu koo tagg tagg ba wax dëgg-dëgg na ay meloom mel ayaa cheikh yow sëriñ bi indi naka man jiitu dikk naa taamixan mbirum may aji xemmem fi nasri ci ndimbal fa xëpp yàlla na nga may la naa ñeellu nasran ndimbal xasiisan lu di aji tedd biiru daayin ànd ak ngërëm sëñ bi damaa ñëw bëgg ku ma dimbale dal may may dimbal lu kawe kawe booleeg ngërëm ayaa cheikh yow sëriñ bi cheyix nii yàlla nag ma seexal jihaaran ci lu bir bi xaqi man ci àqi ka nga xam ne yu cheyixu dana seexal man ka nga xam ne xadd si ita soob na la duuna cheqaayin ci lu dul texee di sëñ bi dal may seexal fi saasay saasa ci àqi buur bi nga xamee ne koo bëgg rek mu defal la ko cheikh mu daal la koy defal ab cheikh muy kuy texee te du texee di mukk waxab yàlla na nga may lii ñeel ma sabxan ak raw ay ya sabxin gu mu ci raw ur yi duxoo goog danaa ko namm di kaw ni ko ci sag nekk waxaaban di ab maye waa kon li ku li lu xaay ñeel gépp may sëñ may ma ma raw na nga xam ni moom laa bëgg a rawe ma jiitu na nga xam ni moom laa bëgg a jiitoo ndax yow lépp ngay maye fa inni naka man xiftu ragal naa alxaara gàcce kul waxal lii ñeel ma ne ma ku fi taxoo fegaleef na la ko di kaw ne ko ci sag nekk xis nan di sënge moo jiban su di aji waral li na jaay ñeel ak mucc sëñ bi damaa ragal gàcce waaye boo nee ma gàcce du la dal rek ma daal di xam ne gàcce du ma dal yow nag sënge nga soo xam ne ku wéeru ci yow rek mucc kon nag nee ma gàcce moom teggi na la jazaaka yàlla na la doole fay ilahul xarsi buurub aras sirran ci lu nëbbu wa jahratan ak ci lu bir bi xayrin tiyaayin ci lu ak daytal min hu tukkee ci moom xayra jasaayin gën ji pay wa axtaaka te yàlla na la jox tuulal xumri yàggug dund jiddan lool mu tam mi man bir mu mi aji mottalee bikum ci yéen diina xoo diineem ji yaa mun yëti yow sama mébét war a jaay yi te sama yaakaar bi xormati man ci ormay ka nga xam ne sirta mujj nga alxadima di liggéeykat ba laxoo ñeel ko bixii ci kàttanu yàlla alayhi yàlla na doole nekk ci moom salaatullahi teralu yàlla rabbi samaayin may boroom asamaan maxal aali ànd ak ñooñ ña wal ashaabi ak saxaaba ya maa dumte li feek sax nga waabi lan di waame woo xam ne allahu yàlla bi ko ci yow yux yi lay dundale xalqaxoo mbindeefam yi bi namaa in ànd ak dolli ko dafa daal la xasida gi ñaanal ko yàlla mi nga xam ne moo mën a fay mu fay ko ngën ji fay biir ak bitti fay gu amul àpp may ko fan wu gudd lool te fa mbëgg diine àgg fa te jaare ko ci sëriñ bi ay ñaan fa yàlla bëgg àggale diine mu àggale ko fa te jaare ko ci sëriñ bi loolu lépp yàlla na ko yàlla defal ci ormay ki nga xam ne moom lay liggéeyal kooku mu liggéeyal nag yàlla na ko yàlla dolli teraanga mook ay mbokkam ak ci saxaabaam li fekk yàllaa ngi def sëriñ bi muy waame woo xam ne day sotti bu sottee nag lépp lu deexoon ci mbindeef yàlla yi mel ne dafa daal di dekkiwaat li fekk looloo ngi am yal na yàlla saxal teraangaam ak jàmmam ci yonante bi ak i mbokkam ak i saxaabaam wa qaala aydan wa qad ahda te mbir moom jox na addiye ilayhi jëm ci sëriñ bi mbir aatan ab seetu mu xaatiban mbir muy aji wàqante la ko ñeel ko dafa joxoon sëñ bi addi ab seetu wax ko lii ne ko iqbal yàlla na nga nangu di fadli ko ci sa ngëneel yaa dal fadli yow borom ngëneel li mbir aati sama seetu bi xaboola jaasin nanguk aji faye xayraatin ay yiw bi àddanal xayri ci gën jaa néewi aw yiw sëñ bi seetu bi addiya la waaye du dara nangul ma ko rek ci sa mbaax nangu koo xam ne buñ ko joxee la gën a tuuti ci yiw moom day fayee yiw yu bare bari yoo xam ne du jeex du am àpp falxal bu xol ba lam yal tafit gëstuwut mu daraaka diirub xam na la ilaa cheikh jëm ci ab sëriñ siwaaka bu may yow wala mu yus xaf te muureefu ko bi mbir aatin ci ab seeto wala bi sonda du caageenu ci sonda wala layla du caageenu layla wa man ak koo xam ne ka xumaa ni ngi mel ne ki ñoom ñaar ba li fi nekk ante yow yaa cheikh yow sëriñ bi aqwaati yaay samay dund fil awqaati ci waxtu ya sëriñ bi sama xol bi bam la xamee ba léegi mësta geesu beneen sëriñ mësta sopp leneen ludd yow ni ki jongoma sonda mbaa lay laa ak ku mel ne ñoom ñaar wala yëfi àdduna mel ne seetoog leneen sama xol ba mu la bëggee ba tey bëggul leneen li wóor daal mooy yaay sama dund waxtu ne aalaytu giñ naa ne ab xii duma sàkku ngay nattale laa laa ab xii badalan genn wot dikkum ci yéen yaa saadati yéen samay sang wala aalu te duma gàttañlu ak dëxëra ci jenn jamono urum diikum di leen gërëmloo bi aalaatin ci ay xalima waat naan lu yàgg yàgg bëgguma yàlla jox ma leneen lu may yow bëgguma laa weccee dara te lu yàgg yàgg li ma mën a kus néew ci bind ci saa xalima di la woy danaa ciy jéem a def lu ma man duma ci gàttal lu mukk maa siltu dañu ma arqaadi yéeg bikkum ci seen daraja marqan ab yéegukaay wala ab ak yéeg yaaxi zo kook dana jafe xalaa raaxin ci aji yéeg yaroomu kook day sàkku ruqiyan ak yéeg doona mirqaat yi ci ludul sama yéegukaay bi ba ma la amee ba tey dama yéeg rek jëm kaw ba àgg naa foo xam ne keneen ku jaarewul fi ma jaare mën laa fexe ba yéeg ba àgg fa baytal ma aarifi yow néegub xam-xam ya yaa man yow mi nga xam ne laa yazaalu du dañ yur yi di wane ayatin ay màndarga minal maqaami ci li ibrahima ñeel ibrahim banaytu dëgg naa baytan aw bayit lakum ñeel leen yes foo boobu dana puukare woo bi mat xiku moo ci seenu tagg fam la yàlla na nga feesal bu yóotiye samay néeg wa abyaat yi ak samay bayit asraaran ci ay secret yow néegu xam-xam nga foo tollu din wan kiimtaani maqaamu ibrahim way naa la aw bayit woo xam ne day puukaréwu ci ëmb gi ëmb sag tagg kon nag faye ma feesal saa bayit yépp ak sama néeg yépp ci ay secret ki leer fadlul xadimi gënub sëriñ biit la géekat yonante xalaa sirbil kiraami ci mbooloom way tedd ya mbax mboolu seen ka fadli man mi ngi mel ni ngëneelul ka nga xam ne wasfoo meloom yetloo dana topp kamishkaatin kamishkaatin ca nekk ca sóoratu nuur allahu nuuru samawaati wal arda matalu nuurihi kamishkaatin fiha misbaaxun al misbaaxu fi zujaaja mu wéy te ne sëñ bi ni mu gënee mboolem gaa yu baax yi ñu ngi mel ne ni yàlla gënee mboolem mbindeefam yi ak ni nga xam ni moom la leer gu yàlla ëppe doole mboolem geneen leer gu bokkut ak moom alxaarifoona way xam ñi yàlla idaama uqridoo ndeem taggeef na leen im basatoo ñu tàlli fabu sut kon tàllalal li daati ya jëm ci sama jëmm la daatil mëlit daati bànneexi way bànneex xal ya gaa yu baax yi daañu def biñ leen taggee ñu tàlli bég kon nag yàlla na nga taal bég ci sama tagg wi te sottil ma lépp lu neex cut yàlla na nga tabe li ñeel ma bi kashfi xitaa in ci wuñ ak muuraay xat akoonu bokk dana bari ma nekkee bi ci ci moom kawaali di sibti di mel ne waajuru sët ba i xaanun ci ak wóolu bi mayraatin ci ay xont sëñ bi muril ma muuraay ga ba mu mel ne al imaamu Ali yi mi nga xam ne mooy bàyyi ñaari sët yoonante yi Xasan ak Xuseynu te Ali moo waxoon ne àgg na ci yaqin foo xam ne buñ ko muriloon kiiraay la itam li mu am ci góol du mënta yokkooti àggoon na ci ak wóolu foo xam ne buñ ko muriloon kiiraay la mu jàkkaarloog lépp du tax yaqinam mën a yokk moom ci xam ci àggoon mu ne ko nag may ma loolu indi naka man arjo danaa yaakaar bi mat xika ci sa tagg nay la ma am la nga xam ne xaja sat lort na antu walis ko alhadiyaatu adiyeya yaa aslal hadiyaati yow cosaanal may ya sëñ bi tagg gii ma lay tagg dama bëgg mu àgg foo xam ne day sori ci yow lool ba ma amee ci loo xam ne jeneen addiya ni ki alal mënu koo maye naa ci am daal ci sama tagg wi loo xam ne jeneen addiya mënu koo maye yaa mux ji la riixi yow aji gàcceel ci ngelaw juudan ci ak tab kulla asminatin ci yépp jamono laa siyama rawante naag a chehru weer wa daawile chehrul ganimaati may weeru màng ya in kaana ndem nekk na waf du kumoo kenn ku bokk ci mbooloo may ñëw ci yéen waf du dañ koy wax délégation mbooloo ma dikk xam ne kon baat bi mufrad la maanaam yi moo amee mbooloo yuxsa te fi ko xejjal birif di ko moo ci seenu xont birif di ko moo fa inna ni naka man waafilun aji dikk laa mun sil xasidaate ay sos ay xasida mun sil xasidaate sëñ bi yow mi nga xam ne sag tab dafa gaaw ba gën a gaaw ngelaw rawante na nag ci weeru nekk muy weeru xéewal ak jàmm man naam booba muy weeru koor wala muy weeru gàmm ne yaari weer yi moom sëñ bi ci daan ràññiku lool ci neex a gis ak bari xéewal yi muy joxe ne ko sëñ bi yow yi nga xam ne foo toll da ngay tabe lool rawante na nag boo tolloo ci weeru màgg wi bu fekkee ne ay mbooloo ngi dikk nga leen di jox say may kon xamal ne man mii dikk naa di sos ay xasit la ci tagg te bëgg say may kon nag sotti ma may yooyu wa in yëkkun ndeyam dana nekk xidmatul muxtaar yi liggéeyal ka ñu tànn xaadatakum di seen baax fa xidmatun liggéeyal li xadimin xibbi ñeel liggéeykatu soppe ba aadaat yi mooy samay aada su fekkee ne yow sa aada li nga nekk te doo ko bàyyi mukk mooy liggéeyal yonante bi kon nag man liggéeyal la moom laay jàppe ma it muy sa aada yow daal boo jàppee sa bopp liggéeykatu yonante foo toll yaa nga ca kon ma it ma doon sa liggéeykat fu ma toll maa nga ca yaa ni'matallah yow xéewalug yàlla miftaaxal falaahi tey ceebi texe wayaa baaban najaahi yow buntu pajuk aajo wayaa baxral xabtiyaati yow géejug maya yaa waarital Mustapha yow aji doon kañu tànn xàqan ci dëgg-dëgg wa naa ibahoo te aji wuutoom salla yal na dolli tedd nga xale ci moom allësi pour bi nga xam ne axtaaka jox na la min naatin ay xéewal xab yàlla na nga may lii ñeel ma futooxan ay ubbee ak dii yooyu danaa faye bixaa ca ñoom addu yoon a bor ya maxan boole seen fawran ci lu gaaw bi fadlin ci ngëneel bilaa àdduna mashaqaatin ci dul gën jaa néewi ay coona te ko sëñ bi yow mi nga xam ne yaay xéewalu yàlla yaay ceeb yi texe yaay buntu pajug aajo yaay géejug may yaa doon yonent bi ci dëgg-dëgg wuutu ko yàlla mi la jox ay xéewal nag yàlla na dolli teraanga yonente boobu sëñ bi may ma ay may yu bare bari ay fatxu yu bare bari yoo xam ne ca laay jaare fay saa bor yépp ba du ma deseeti benn bor te def ko fi saasay saasa rek ci dul benn coono alay sama ndax déet li nga xam ne ab tax yi danaa ko sàkku min fadailikum ci seeni nganeel cheyan muy dara yasiran luy aji néew ajal waawaaw min xëyri riibaat njulul yenn sikk sàkka mu ne ndax li may sàkku li ma nur ndu lu rëy xanaa du lu may lu tuutee tuuti ci kooku seet ci say may ak li la yàlla defal ah kay li may sàkku kay ko seet ci li nga amee lu tuutee tuut la cay doon li ma bëgg nag mooy fawsun texe wa bishrun ak mbég wa yundun ak barke xayru muntaqidin boobu du aji firiku wa an usaayirakum ak ma ànd yéen di dox fi kulli xaalaatin ci yépp mbir li ma bëgg nag mooy nga may ma texe ak mbégte ak barke boo xam ne du dañ du wàññiku ak fu ma toll nag foo dox rek ma ànd yow taqabbal yal na nga nangu min nii ci man bilaa àdduna munaaxasit ci ludul gën jaa néewi ak gëstoonte maanaam gën jaa néewi ak seet ba xam li ma lay jox lum doon inal karima naka aji tedd ja safoohun ab jéggaliwaakoon la xan ka zallaatin walis lu mel ni ki ay rëcci rëcci kaa foogu daal maanaam misli xan misli zallaati sëñ bi nangul ma sama tagg yi te bañ caa seet dara du waa ju baax moom day du mooy du faale rëcc rëcc ci kenn an hi jeexalal istikaa yi sama jàmbat bi sukkurin ci ak cant xat ulaa si mu xoog la naa taxoog moom xaddu ulaazimu hoogu danaa taxaw moom sirran ci lu nëbbu wa jahran ak ci lu bir bi insaaqin ci ak goreel wa isbaatin akuk saxal sëñ bi bari naay njàmbat waaye jeexalal njàmbat yi ci weccale ma ko cant goo xam ne du ma tàggoo teg moom mukk mukk fu ma tool yi sant ci biir ak ci bitti nga goreel ma saxal ma wa ji yàlla na nga jëmale li jëme ci man addaxara ci jëpp jamono maa loo xam ne faaxat kawe na mu daa dee sama na mel min yusrin ci ak yomb wa xaafiyatin min yusrin ci am koom wa xaafiyatin ak jàmm fii kulli saaxaatin ci mboolem ay waxtu xaw mel ne nag maa faaxat jooju bu doon ci zahir maa faaxa mooy gën a dëppoon teg zahiris maa bu jàppee nag maa jamxu nag faaxat na bu xiyee kon mu dellu ci moom sëñ bi foo toll deema jëmale loo xam ne day féete kaw laa doon bëgg ko wut ci lépp luy xeetu koom ak lépp luy xeetu jàmm daal deema ci jox loo xam ne day weesu la ma ca bëggoon nafsi yi sama bakkan wama lii ak sama alal wama ak lépp loo xam ne lii ñeel na ma min ban yi na ci ay doom yu góor wa min ahlin ak ci ñooñ fidan ak njot la lakka ñeel la yaa xawsal bariyaat yow xettalu mbindeef yi sëm ji sama lépp def naa ko muy sa njot sama bakkan sama alal ak lu ma am ci njaboot rek lépp def naa ko muy sa njot loola nar a dal nanu dal te bàyyi la fi indi naka man it taxastuka jàpp naa la rukk nan nga di ab ponk xat aloosu bopp danaa wéeru bopp baraanu ma wéeru bi ci moom in raama ndem sàkku na daabatu arbin ak max max maxu suuf ak max mooy max gi nga xam muy lekk bant yeeg sàkkide yooyu ak la min saati lekk sama dokk bi sëñ bi bu ak max bëggee funuxal dokk bi nga xam ne moom laay sukkootoo man defe naa la ngay sama wéeruwaay boo xam ne lu yàgg-yàgg xam naa ne ku wéeru ci yow yow doo dang daay te ndegam doo daanu rek ku wéeru ci yow du daanu nawaaluka sag may aljam ngay aji bari laa yuux saa defu ko mën a lim wa matu ka te sag tagg xat an yaa lottal na bi laa réer bi njul yenn sikki sàkka an lal baraaxaati ñuñ raw ya sëñ bi sama yu bari kenn mënu koo lim tagg la itam na mu gën a mboolem ñaraw ci mën a tagg xaal si yile badaa ihu naa ñoo di sunuy njaay tux daa def na leen addiyaal li xadriku moo jëm ci seen daraja law la tafadulu bu doon sag mbaax ak sag gën mazalat duñu dañ ñoom njaay yooyu bi mus jaati di luñu bëmax sëñ bi lin andi mel na mooy sunum njaay bëgg nga jënd ko kat sore naag sa daraja sa daraja kenn mënu koo jot bul ko nag sag mbaax day doon loo xam ne kuñ ko jox rek nga falan ko waaye nag sag mbaax ay tax luñ la jox rek nga nangu ko ci sag mbaax ridwaanu rabbi ngërëmal sama boroom xale ka yal na doole nekk ci yow ak dëxëra ci jëpp jamono yaa wasari yow sama wéerukaay bi yaa man yow mi nga xam ne xosista jagle leef na la bi asraaril mutimmaati ci secret yi way motliya sëñ bi yàlla yal na la dolli ngërëm yow mi nga xam ne yàllaa la jagleel secret yu mat yaa mat wala ho aydan min yi tukki na ci man salaamun ab nuyoo yëli ba dana ko topp kullu tab jilin gépp màggal ila malaasin jëm ci ab wéerukaay azimil faydi kuy aji rëy ak bëbb wala kuy aji rëy mayu baawaan lil jiili ñeel mboolem maas gi cheikhin ab sëriñ la wàlli yin ki wàlliyu ali yin kuy aji kawe qodwatin kuy aw royteef wasarin te ab wéerukaay yajuloo kook dana wuññ sanaaxu leeram nga du junnaatil abatili lëndami caaxaan ya sëñ bi ab nuyoo ngi nii boo xam ne day ànd ak màggal jëm si ci yow mi nga xam ne danga di wéerukaayu mboolem xeet wi di ko bari ay may may yu jëm ci mboolem xeet wi sëriñ nga waliyu nga ku yàlla teg ci kaw royteef nga wéerukaay nga sa leer day dindi sa leer day dàq mboolem lëndami caaxaan yi am nun ak wóolu la zawahiruhu ay bitteem yum nun barke la bawatinuhu ay biiram ikliilu kulli fatan muy ndëppal jëpp waaju baax yu duxaaku def na ko wooye bi ikliilin ci ndëpp jëmmun aji bari la mawaahibuhu ay mayam yemmun géej la manaaqibuhu ay ngëneelam faaqat kawe na maraatibuhu ay darajaam maa lépp loo xam ne lil bahaaliini ñaaloon na sang